laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ngeen jëf euh, gis ngeen ñoo ngi ci bis bi boobu ba léegi euh, di taxawu liggéey bi xam ngeen ne bis yu mel nii xéwal yi fu nekk lay jógee waaye xam ngeen ne Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda bi mu jotee ci liggéey bi dafa woowaa alali maam Cheikh Ibrahima Fall eh, Seydina Omar Seck jëwriñ ja dénk leen li nga xamante ni mooy waañ wi nga xamante ni mooy eh, waañu eh, kër sëriñ bi Seydina Omar Seck agsi na gis ngeen camion bi suñ ginnaaw moo def xewal yi yi nga xamante ni moo jógee ci kër xalif général des Baye Fall di sëñ di Fall moom sëñ Modou Mbenda loolu moo tax ñu fas yéene ànd ak yéen rek xool ni nga xamante ni noonu la ñuy wàccee xewal yi ci bis bi mel na nag yaatu na lool ndax ren dafa am soppiku gu ci am muy euh, taxawaay bi nga xamante ni euh, njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina foo dugg rek taxaw nañ ko ci liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha sant na leen ko kon bu ngeen ànd ak ñun ak suñ cameraman ñu xool camion bi lim sëf ak xewal yi ni mu demee jërëjëf. laa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 mbokk euh, comme ni leen ko toppale woon léegi rek gis ngeen euh, camion yi agsi nañ léegi waaye taxaw fii nga xam ne mooy kër sëñ Isaaxa fii ci pénc mi euh, añ yi nga xamante ni sëriñ am Amdi Fall Modou Mbenda toggoon na ko waaye sant ko daayira bi nga xamante ni mooy alali maam Cheikh Ibrahima Fall ci jëwriñ ji nga xam ne mooy naa Omar Seck di añ yu kéemaane xam naa ne duñ ci kii sax dañuy bàyyi sëñ Omar mu leeral ñu liggéey bi nga xamante ni sëriñ bi jox na leen ko kérok bi ñu déggee ndigal li ci sëriñ bi ngir taxaw ligéy bobu ban passeef lañ ci am ba mu aksi fi tay señ Omar buñu la nuyo ziar la añ yaangi ni di wacc gis ngeen mbokk talibé yi mal na ne mbana yi ren dafa muccu ay lool lañ bëggoon nga am loon ci léral ci ligéy bi nga xamné khalifa général de Baye Fall jox na leen waaw kay jërëjëfati señ Cheikh Fall jëmb yalla na yàlla doole leeram mbàkk Cheikh Ran Fall di ñaan sëñ Amdi Fall moom sëñ Mourou Fall Menda yalla yaako fi loolu téwéer wana lim na ligéy ko maamu def ko ni ko bëgg ta and ko muur yépp sëñ Ablaye xam naa kàddu gudd gudd ndax ñoo ne ci liggéey te wolof daan wax ne ku ne ci xare euh, te xare ba jeexagul waroo dallu euh, te jóge ci xare bi di fecc daa gën jëm xare bi fecc te ñun ci xare lañ ne muy liggéey sibre mu mel ne ne sëñ Baaba Kor yaa jël ma mii ni taxaw sama wet bokk ci Alioune Seye Fall dëkk jëw di nekk sow ñëwoon ci liggéey bi naa ne mooy porte parole daara ji saa yu ndigal jàlle moom mooy ki nga xam ne su ma ko jàllee ci moom dina ko jaaxal ci mbooleem suñu jëf sama jaay bi nga xam ne mooy jëwriñ soxna yi daa koy coordonné mbooleem gaa yi waa réew mi seen jëwriñ Baye Madi Kébé wabu tamit yow seen jëf si Ousmane Yadd ñu ànd jëfandoo ko mu mel na ne nag euh, tey jii nii bis bi xam ne mooy dix heures yi si mun taxaa santoon suñu am di faaloon suñu Mourou Fall Menda suñu am di faal bis boobu ca ndigal la wàccee la moo woo daan ne suñu ngundaam woo ne ma sëñ bi nee na nee ko toggal ay ñam yu mucc ayib yu mucc ayib mel na mu war mel boo ma paree ngeen teg ko ci loxol suñu daam mu teg ko ci loxol suñ gës bul murit ndax ñoom ñoo la dénk organisation bi li saytu mboolem liggéey bi euh, loolu ci laa ko jàllale suñu Babacar Korea mii taxaw sama wet na ni moom mooy porte-parole daal ci la ko ci mboolem ñu àndu jëf ko mu mel ne jëf nañ ko jëfin woo xam ne duñ ko naw ndax lañ ko bëggoon mën a defewuñ ko noonu ndax suñu yéene mooy nekkoon mboolem ko fi teg si tànk ñu añal la yéene yooyu ñu amoon ak pas-pas boobu te ba ba fi may waxee yow pas-pas boobu lañu am kon ki xam ne am pas-pas boobu añal ñi fi ñi fi nekk ñëpp bu fi indee lim bi toll ci mbana toll ci fanweeri mbana na xam ne mënut añal sax booy xool téeméeri nit loola loola moom wax ci du mën a bari ndax sëriñ bi ni mu ko bëggee woon mooy ñu añal ñi fi nekk ñëpp comme jotewuñ foofa nag ñun loolu wax ji du mën a bari li ñuy waxaat mooy ñu góorgóorluwaat te toogaat diglu ndigal fii ñuy waxee yéen bu suñu joxewaatoon ndigal taggi añ suba ñu toogaat ko indi rek ñim ñu ko joxloo woon nag di waa gës bu murit as nañ ci suñu pas ak ñii suñu bas Fall mi ngi noonu taxaw xam naa du ñàkk kenn ci ñoom jël kàddu léegi nag la amaana ah, nag la la liggéey ba doxee nag ak ni ñu ko coordonné damay bàyyi Sëñ Babacar mu leeral la ko rek ak saa jërëjëf. yow yaa yor liggéey boobu euh, Seydina Omar dégg nga ko am na ci loo xamante ni yow yaa ko euh, yow yaa ko euh, coordonné ba mu mën a jàppandi kon loolu lañ bëgg nga leeral ñu tuuti rek ci bu ngeen jotee ndigal li ci seen. jaajëf ñu ngi jaajëfalaat bokk taalibe yëpp di jaajëfalaat baax naa Seydina Omar Seck Nourou Darayni sëñ baay Fall Rassa ak moom mboolem waa daaree Alaaji Maam Cheikh Fall bi lu yomb la eh, ndax li ko jiitu mooy pas-pas pas-pas mooy doxal te itte itte goo gis lu mën a lu mënta mottali loolu amul itte googee nag eh, moo nekk ci waa Alaaji Maam Cheikh Fall gépp ba tax keroog bañ jotee ndigal li sëñ Amar Seck jot ko jottali ñu ko ñu jottali ko waa daara ji keroog ba nga ko jottalee waa daara ji mel na ni sax suma ma su ma su ma jumul ba ne suba la tabaski waaye teewul dafa mel ni waa daara jëpp dañoo fàtte ittey tabaski ji jël loolu def ko seen te loolee li ciy firnde mooy taxawaay bi nga xamante ni taxaw nañ ko ci mooy jëf ku xool jëf ji xam ni wàccaay wàccaay bi yaatuwul waaye teewul fexe nañ ba jëf ko jëf woo jëf woo xamante ni wàccaayu at la mooy lii lii ñu gis nii coordination bi si lenn rek la tëmb moom mbooloo la bu taxaw parce que liggéeyal seen enfant te te te amuñ ci xalaat boo xamante ni bi ñuy ñuy xel ñaar la ak bi ñuy sikki sàkk li sëriñ bi bëgg te Seydina Omar Seck daa ko wax rek mooy li sëriñ bi bëgg day am ñoom mbooloo mi foofu rek lañ ne coordination bi si loolu la jot noonu la dépendre ñu jottali ko mbooloo mi ku nekk doxee ci na nga ci war a doxee ba jëf ji daal mel nii tey. jërëjëf sëñ bi ngeen jotee bi leen sëriñ bi joxee liggéey bi da leen a booleeg daayira Murit ngeen jébbal ko su su euh, liggéey bi sontoo ngeen jébbal leen ko ñoom teew nañ fi kon xam naa dañ leen jox kàddu gi rek ñu yëkkat ci li nga xam ne sëriñ bi bool nañ ko auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani suñuy kàddu sax lu seetaan yii di yii di wane li ñu si gis du bari dañoo bëgg di féetewoo ca la gën a métti rek muy liggéey bari na fu ñuy fu ñuy waxee foo xam ne dooñ fa teewaay kenn du fa gis suñu jëmm waaye nag ñii moom mënee suta ñàkk a seere seen jëf ndax dañoo doon jëf-jëf ju dañoo jëf-jëf ju réy joo xam ni képp ku bëgg Seex Ibra wala nga di soppam wala ku bëgg lu baax rek te lislaam ñor la seen jëf euh, ànd nga ci ak ñoom li may wax ci yéen rek mooy alal fu borom jëm yóbbaale ko nit man na am bu mu rafet way bu sang da koy sumb man na am auto lu man di don rek bu yalla sun borom ñewé da ko fi baye dem waye alal mom borom da koy yobale te yeen yeen ay alal la kon li ngeen rek. la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah.